matal malaaka si di bégal sëñ Bamba yow la ñu àndal yàlla sa barke maa la gëm bu ruuxu rocc banaaw jëma sama wane gannaaw soppe bi yow la faaw yàlla sa barke maa la bu ñu ñoree yaram rob ruumaan di jaas sunu durab sëñ Bamba yow la ñu fa ngëm